Bonjour, bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Bonjour et bienvenue au Parc des Princes de la 2STV, la télévision autrement. On est mercredi, mesdames, messieurs, mes chers téléspectateurs. Quel plaisir d'être avec vous, histoire de détendre l'atmosphère et de vous donner le maximum de plaisir et d'ambiance. Voici votre ami et frère Kheucha. Bienvenue au Parc des Princes, mbokk yi xaritu téléspectateurs yi. Maa ngi leen di nuyu di leen siyaare bu baax a baax a baax a a eh, waay na nag libaas laay mon ami très cher maa ngi lay siyaare mi ngi noonu maa ngi woon ci biir tuyau bi di dox di ñëw ci yéen mesdames et messieurs mes leen di siyaare di leen kontaane bu a baax les sénégalais de la diaspora bonjour à vous et bienvenue au parc des princes de la 2STV contentement mbégteeg bànneex waa Italie waa France euh, waa Portugal ah euh, yéen ñi nga xamante ni yéen ñuy seetaan sa United States fépp fu waay mën a nekk rek euh, foofu en Europe ou à l'étranger maa ngi lay kontaane di la béggee bu baax a baax a baax ici en Afrique ngi bëggee waa Burkina Faso waa Mali waa Niger waa Nigeria waa Côte d'Ivoire ah ah fu waay mën a nekk ci àdduna rek maa ngi lay siyaare di la bégab te di la wax ni li ci seen biir xol maa ngi leen di kontaane bu baax a baax di leen jox seen wàcc waaye te di leen wax bonjour et bienvenue au Parc des Princes de la Sénégal euh, bokk na ci euh, yenn pays yi nga xamante ni ñoom itam chaque fois dañuy seetaan euh, région yi sax je peux dire Dakar ah Saint-Louis du Sénégal ah foofu ca Tamba foofu ca Kédougou foofu ca Kaffrine Sédhiou un peu partout au Sénégal dañuy seetaan ci Sky benn dëkk ñaari gaar waa Tivaouane maa ngi leen di xaare bu baax a baax kii nag mooy Libaas Laay xalif général mais la mu pat d'éléphant loolu leneen la <laughs> maa ngi koy bu baax a baax di ko xaare bu baax a baax et mon ami très cher monsieur Grégoire xuloo nañ xuloo fajar man ak moom xeex rek lañ deful xeex xeex maa ngi lay kontaane di la xaare bu baax a baax du nuyu Aristide moom Arist moo gars sur ah maa ngi leen di siyaare bu baax a baax à la régie Fatou et l' ensemble de l' di leen béggee bu baax a baax di nuyu ngaay euh, moom mi nga xam ne tey moo nekk fii ci régie bi ci kaw dafa am régie bi ne ci kaw am bi ne ci suuf on se traite daal tar kàlla moo yaatu di nuyu sama caméraman yi bu baax a baax a baax au passage aussi di leen kontaanee toujours c' est sur le 88 628 euh, si ngeen di a participer yéen tamit ñu mën a nuyonteeg yéen baaxante duggante lépp fii lay xewee tey la mercredi xam ngeen ni chaque mercredi li ma leen réserver mais nan dem Grégoire. Et on revient. C'est parti, mon ami est très cher. Let's do the show. original musique venant du Sénégal. On l'avait cuisinée pour ceux qui la médiocrité musicale. Celle-là est locale, on l'amène à l'échelle internationale. Tony de combat, Kingdom, la marque elle est royale. ñëpp a ko télé ma andi ba ma ko bëgg ko akimo xam na ni moomu ko Sénégal jot na ngeen gërëm a Edimo Edimo. Tu l'as connu depuis qu'il a le cœur des gens. Là on est

pas moi y'a personne qui peut faire ça waxal ma kee wax ko ni maa ma kee xamal ko ne nga ma benn yoon utuma raccourci ngir am bës xëcco nga ndaare bi ma njëkk la sànni dem loo I'm only one who can give you this kind of vibe I told ya music moom ma love là Tu ne peux pas être un from Afrique de l'Ouest Tu veux de la bonne musique, négro I'm the best Je suis pas dans le tofu, je t'hypnotise dans ton présent Dans ton présent, c'est Edmond qui te fait ça I'm the number uno, I'm the only one Nigga à mon niveau, mon nom def ni man I'ma shut the fire to all the Batman Revolution gi ba a personne qui dëkk bi mu li màgg ci dëkk bi tey nga bañ suba nga nangu ni taalibeeg sëñ bi eh mi xam nga ki koy génnee ci dëkk bi waaye et moolu waaye xëcadikatina loolu loolu la naan harmonie boos xëcadikatina nguuda nguuda démb ak harmonie mi ci biir entre temps mais nguuda kan moo ni que da ngaa mën a waay cëtëtëtët mi nguuda artiste bu bees la quoi moom nee moom mooy roi du mbalax waaw dañ ko jàppale rek tarkal dinaa ko invité fii ci Parc des Princes xool moom lan la mën a lan lan lay jéem ay ca contentement mbégteeg bànneex la ñuy àndal ami chers wax naa leen ko léegi c'est sur le 88 628 14 13 ngeen mën a dugg ñu waxtaan ak yéen dafa yori matériel am mi ngi nii ki way libaas laay <laughs> sama waa ji ak doy waar xoy wi da xoy xoola fu ma dugal nii léegi fii moom bu ma bëggee jàll nii laay def libaas ah, ba jàlla ah. <laughs> <laughs> aka doy waar maa ngi kontaane bu baax a baax alors comme chaque mercredi nee naa leen dama leen di réserver li nga xam ni moom moo di ay rétro waaye laataa ma ciy ñëw bàyyi ma jël ki nekk ci ligne ba pare c'est sur le 88 628 14 16 sama chemise baax na de balaa kenn dama ma wax ak sama bopp salaamaaleykum. salaam. waaw maa ngi siyaare waay. loolu siyaare bu baax. Eh, mais ma ma ma def yow. maa ngi. yow yaa ngi baax. baax. man maa ngi baax ku fi xolam di baax. allo. waaw allo waaw. waaw la kan mooy këf sa téléphone bi noonu. ah benn boy la rek. eh boy boy arrêté yow boy yow eh, doo bàyyi ki ngay ruuba yow mais naka mu nag. sant yàlla nice. yaa ngi yaa ngi yaa yaa ngi fine quoi. waaw ah, maa tudd ak fan ngay wootee. maa ngi tudd Baye Zal. Baye ñu ngi lay siyaare. yaa ngi am tawféex bu baax. maa bu baax. bi Zal fan ngay wootee. Daaru Khuddoos. Ah. maa ngi lay siyaar di la kontaane mi ngi nii sama waa ji la cum xoolal ma sañse tey tey nag euh, le shop moo ma sañseel tey le shop moo gaa sûr moo génn fii yëpp maa ngi koy kontaane bu baax a baax moo très cher waaw ma Baye Zal. waaw mais yow yaa ngi fine quoi. Ah, yan xéwal tey xéwal amul de. Ah, jàmm non amul tey. jàmm si <laughs> xéwal amul Baye wa waaye yéen amul. jàpp si rek nga defal ma dara. waaye yéen ah kon xéwal am nga bëgg ma jàpp ci. jàpp kon baax na naa ci jàpp Fatou dina jël sa tur ak sa numéro. waaw dégg nga. waaw ñoo far amal jàmm. kontaan ci moom Baye Zal sëñ bi ñu ngi koy siyaare bu baax a baax depuis Daaru Xuddoos di ko jox wàcc waayam def leen ni moom yéen tamit ngeen mën a baax neexu ci li nga xamante ni moom moo di xewal yi ñu leen indil euh, jëmale ko ci gàmmu Tiwaawan euh, du ma ni sax gàmmu Tiwaawan ndaxte <laughs> gàmmu gi dégg naa Tiwaawan moom euh, ren du mën a am du mën a matale waaye defoon naa ca daara ja da ci sunu daayira ja am na la ma ca joxoon jotoon joxe xaw ma lan lan koy def nag ah da la ma nattoon ca daayira ba léegi lan lan koy def ma jéem lu ñuy def ci daayira lan la ñuy def ci sama nattuwa xanaa ñu dem def ko ca jumaa a rek ah, ah, waaye bu fekkee da ngeen di dem Njaasaan wala ngeen di dem Kaolack ak ñoom seen fu waaye mën a gàmmu jee rek euh, comme que gàmmu gi ñëpp la euh, mën ngeen nu woo ci 88 628 14 16 ba ci seen biir kër bu ngeen fay gàmmu ñu mën leen teral euh, ndaxte yéen a ko moom seen xéwal la mi ngi nii ma téye moo ko daal xaw ma lu sama problème rek war ngeen ma woo yee yedd ma nag ayca 88 la 628 14 13 aujourd'hui li ma leen réservé ci ay rétro bari na donc ndaanaan bi nu invité aussi ay rétro dinañ ci teg à quatre yoo xamante ni euh, rien que pour vous servir la yéen ñi nga xam ni yéen a ngi nii seetaan un peu partout dans le monde euh, bokk na ci euh, ki nga xamante ni macha allah moom moo di Fallou Dia tey moom laa dalal donc tey di ngeen fecca fecca fecc ci rétro bay bëgg a alors très rapidement fi ñuy commencé nag dañuy dem ci ki nga xamante ni moo di Daara ji famille waaye bàyyi ma jël ki ne ci ligne ba pare sur le 88 628 14 ou 13 bonjour. allô. oui allô. oui je. Xasaar xasaar mënoo xasaar je suis vraiment content. moi aussi je suis content comment vas-tu. xasaar je vais bien. yaa ngi baax. maa ngi baax. lépp nice noo tudd. Mati. ah. Mati Mati. Mati foo may woowee. Kaolack. billaay dama kontaan sax saa mënoo imaginer sax. ndeysaan Mate yow koo bëgg man. bàkki Seexu Xadim. oh ca xol ba la ko tibbee. billaay. lool lool dafa fees Grégoire munul am lii. <laughs> mun koo am munul am lu mel nii. nga demal lan xëcaa dama laa mere nag. waaw ah, lu xew Mati. xëcaa yooyu ba nga dañuy ba tey mënu maa fexe ba taal añ 11 loolu faatu <laughs> loolu faatu la loolu faatu la faatooy def yooyu. ni ma maa la gën a kontaan vraiment. man nag maa ngi dalee ci depuis bi nga invité Sidi Diop ndax man damaa a Sidi Diop. ah ndeysaan Diop bu nag lu ne def na ko foofu seen seen seen seen seen seen euh, cœur de ville bu Kaolack boobu. waaw ah, ndaanaan la loolu foofu feesal na ko ba taay fekkee naa ko teg naa ci sama bët. loolu moom dëgg la. ndaanaan la da bëgg bëgg di Diop sa biir xol. kon da yow di nga mën a def ak maa Adja Adja Nabulaay Saw moom itam ak bëgg Sidi Diop day way muy jooy de <laughs> mais yow baax rek ah. kon ku fi xolam di baax. Eh, demal nga toog yow. maa ngi <laughs> xale yi ma leen bëgg mais libaas laay sama waa jaa ngi de cey sama waa ji mais yaa baax rek ah. waa <laughs> yàlla mu ñëw bégal la ci mbaax ndaxte tey rétro laa la indil tu as toi. 13 ans. tu as 13 ans. c'est vrai que li ci bari yow yow yow moo la mag ci ay chansons yi may teg tey lu ci bari moo la mag parce que ça date euh, de 15 à 20 ans donc yu ci bari ñoo la mag mais tey ça va te permettre nga xam musique yu démb. Ndeysaan dem na xale yi man lan bëgg maa ngi koy kontaane bu baax a baax from Kaolack euh, di ko jox wàccuwaayam très rapidement monsieur Guèye ñu bëggal nit ñi ci mbaax ñu dem seeti ñi nga xamante ni ñoo di daara ji famille euh, ñoom la ñuy tàmbalee ah bu fekkee ni tomorrow jekk na rek ay ci xuusal ñu dem. <laughs> yow yaa ko <laughs> nga def ni yaa ko tay yow ah. dañ mais est-ce que xam nga kon lëz dafa doy waar le shop moo jaar fii tey. Hmm. ak Ibou a laal suuf gi xam nga dàll yi hmm. tarkaalo loo sol day ak moom ma ne ko Ibou yi ma jox bari na lool waaye bilaay na sa tey. no xëcaa. non daa dégg Ibou kenn day moom. sama xarit bi ay xëcaa c'est la première fois oh man ngeen bëgg de yàlla na seen jàmm yàgg. amiin yàlla yàlla guddal seen fan. amiin. mais noo def noo tudd. maa ngi nii Seynabou loo sant. ñaa. Seynabou ñang baaloo yow yaa baax. <laughs> mais naka mun a foo dëkk yaa baax Thiès laa dëkk. Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar. waaw foofu boos a fa ñaay. lu mu deful Thiès da koo fàtte kooku noonu <laughs> boos. xam ma man ak Leuz dañ demoon parce que Leuz moom mi ngi ci shop beeg ñoom seen. Euh, di noppalu mais boo sa nekkoon Thiès di def di dindi di di wekki di dajji <laughs> loolu mu dugg ci mais maa ngi Leuz moom dañ nelaw. waaw nga ni. kon baax na. waaw noonu la demee de mais sinon ça se oui ça va ça tàngaay bu dafa xaw a tàng. trop. c'est vrai man du ma yëg tàngaay ba heure bi parce que sama clim bi nekk à côté. dafa xaw a doy waar parc des Princes bari clim boo fi duggee dangay ngay mel ne ku ne Paris. loolu la maa ngi commencé sax di sol ay vest dinaa commencé def ay vest vest cuir yenn affaire yu mel noonu parce que fi day sedd tellement ko man mi su ma solee lii da ngeen di jàpp ni dama ko sol. Euh, hmm. dama ko sol parce que dama topp temps bi. xam nga man lu may sañse day day ànd ak temps. mais bu ma nekkoon fii ay veste laa fi laal ak ñoom seen damay bàyyi ba sedd bi dugg fer damaa mën sañse nag de. mais Fatou ci xéewal yi laa bëggoon yow tamit. Fatou sama sa salaamaaleykum bi maaleykum salaam bi yow yow naka xaalis nga bëggoon. waaw Fatou jàpp ci yow tamit. waaw yow tamit bàyyi ma waay ah damaa yorut lu bari di. waaw jàpp ci man bëgguma ku may bëggee intérêt yow intérêt nga ma toppee nii. yàlla xam na ne bëgguma intérêt à chaque fois dama lay yow kon yow taxuma nga woote. yow xaalis bi moo tax nga woote. xanaa bàyyi nga non non non c'est la vérité yow xaalis bi moo tax nga woote bu doon xaalis bi doo woote. <laughs> bàyyi yooyu. <laughs> xoolal fi ma dugal a dugalati boo xamee lii lan la ba pare li li libaas encerclé nii ba ba dugal ma ci nii nga xam ne bu ma nee nii yow da nga may gis may ñëw di ñëw di ñëw di ñëw ba ci yow nii xoolal pourtant maa ngi nii ci yow yéen fàttaliku clip boobu oh yow bu naa kër dem ba de <laughs> naa ko may nag man nag xoola su ma la mayee nii après ndeysaan dama koy dama koy dama naan euh, regretté naa ko mais nan dem nan dem ba tey Merci beaucoup Daara J Family ce fut cool une très belle chanson qui date également euh, rien que pour vous servir naa leen à chaque fois dama leen di indil yenn rétro yi mais du ma ko tàmbalee ci mbalax mi damay dugg ci hip hop bi parce que am na ñoo xamante ni sont des hip hopeurs et puis euh, booy déglu musique da déglu musique boo xamante ni tamit moo lay daaneel ku ci nekk li nga bëgg ku ci nekk ak la nga taamu man tamit li ngeen bëgg rek laa leen di indil damay gis seen ay message danu tegal ay nga xamante ni ñoom ñoo di euh, les nga xam ne ñun bëgg na leen bu baax a baax donc à chaque fois damay bëgg di leen ko indil yéen tamit ngeen mën ci békk bokk na tamit ci ndaanaan bi may bëgg a dalal ni euh, nga xamante ni moom tamit Sénégal euh, nee naa la ci wàllu rétro loolu danaa ko poser question bi mais dama koy njëkkee ci yéen pourquoi moom ay son continuer di exister sur la toile c'est très important moo tax nit looy liggéey lu ne dee ci sur demain tey boo xoolee askanu lawbe foo dem dañ koy teg ba ci boîte de nuit dañ lay laal askanu lawbe ñëwal tit ko gudd ko ragat ko ko sàkkot ko taat ko <laughs> loolu daa fees damaa bëgg lool sama biir xol bi ay ca dañuy dem seeti ñagas ah from Saint-Louis du Sénégal ñagas le Baye Fall climatisé eh, Mr ñagas man ay ca ñu di xool ñagas très rapidement wala ñu jël nekk ci ligne ba pare euh, c'est sur le bonjour allo ako waa yee nii de allo oui allo <laughs> Aliou. eh waay ki kan la waay. c'est Amira Thiam. ah. Amira Babel Demba Thiam. Amira. Anira wala Amira. Amira Amira. Anira A N I R Babel Demba Thiam loolu laa wax. dëgg la kii sa maa la billaay. Eh, maa la raw yow lu bari yow Anira. wàññil ma télé bi wàññil ma tele bi sinon dina am décalage télé bi mi gis sa ginnaaw wala ci sa kanam. mais Fapal naan ma naaj satina dafay mel na kon musuma sañse. waaw kon ndeysaan man ngeen bëgg Anira Thiam fan ngay wootee. man yaa ngi ba Géejawaay. waaw waaw et eh, naka Géejawaay. Géejawaay mu ngi baax yow. yéen ngi baax foofu quoi lépp a ngi tolloo. alhamdulilah kon dem leen ngeen toog yéen waa Géejawaay. sëñ Xassam man sant number one sa numéro rek laa oh fait plaisir maa ngi lay kontaanee bu baax a baax bul coupé Fatou dala koy jox léegi nga kontaan. waaw kii incha allah. ayca naa ci yow Anira Thiam. Thiam Baba Dem Thiam Babel Demba Thiam loo dund doyul maa ngi lay kontaanee bu baax a baax li as ma teg nii cay sama waa ji <laughs> démb nee roy dund rek pire laay ñëw fii. rek ñëw xoolal rek passe ma jabar ji laay kat laay caméraman bon recharge te passe madame ma ni waaw madame mu ni ma ça va bien ñi ngi toog di la xaar nekk laay boppam la doon kàttal pour wane ni moom moo fi ne tey mais nekk laay doo <laughs> tus <laughs> <laughs> kontaan ci moom di béggee bu baax a baax a baax alors très rapidement ñu dem seetaani ki nga xamante ni moo di ñagas euh, toujours ci rétro ngir bànneexel leen jox leen li ngeen bëgg yéen ñi ni seetaan c'est parti ñagas bi nga xamante ni euh, def na buzz sur la toile ñi koy kontaane bu baax a baax moom tamit euh, ci way wile nga xam ni moom ñëpp ko bëgg moom tamit di ñagas ah bu lu mu génne lu ne rek day def itam ah, from Saint-Louis du Sénégal notre fierté à nous a ah, à Saint-Louis ndaxte gis ngeen paroles yi maçonnerie moo gën connerie ça apprend donc important maanaam nga liggéey maçon moo gën euh, ngay def connerie di di di di di càccak di def yenn donc c'est des yoo xamante ni macha allah mën nga ci jëlee lu bare 88 628 14 13 bonjour. allo Kheucha. oui <laughs> yéen nag tey yi ngeen jël quoi ay allo Kheucha. <laughs> ok je gère. ça va. waaw naka mu nag. ça va yaa ngi ci jàmm. maa ngi baax yaa ngi baax. oui maa ngi baax. ku fi xolam di tabaarakallaa oh. ay kon demal nga toog yow. et fu leer laa ko teg. et fu leer nga ko teg mais naka mu ne lépp ba lépp jaam. ah ça va. yaa ngi nice di di cool quoi. oui maa ngi cool. di fine di ropoto. oui. <laughs> noo tudd. noo tudd. man Tima Rasoul. Tima. oui. Tima Rasoul. non Tima. Tima comment. <laughs> Tima Soula. waaw yow ni ngay waxee moom Tima lan da ngay wax Tima Tima loo sant. Njaay laa sant. Njaay jaata Njaay Sénégal Njaay Njaay dibi Njaay teraanga li ngeen ci dëkk bi bari na ana dragon ba ne woon Géejawaay génn na. ah non non dangaa ju mbokk ah. Njaay moom. <laughs> li ngeen def de kenn attanu ko mais lépp naaj Tima. Eh, Moussa bokk ak Njaay boobu de. Ah? <laughs> bokk sa njaay boobu. doo. ma ni bokk sa njaay boobu. ah bokkul ak njaayeen yooyu. non non bokkuma ah, ci njaay dara bii njaay bu spécial la quoi. waaw. mais yaa ngi bànneex chanson bi ma teg léegi léegi xam nga ko ñaataat nga am yow. man 18 ans. tu as 18 ans mës nga déglu musique bi ma teg léegi léegi bi passé ñagas bi. dama koy déglu. ah. daan nga ko get. kañ nga ko daan kañ nga ko daan seetaan. Hmm, xaw na tuuti nag. Ah. Hmm. gis nga fi ma nekk nii. yii ma ñëw ma ñëw ci yaw ma ñëw. ñëwal ñëwal. waaw loo tax ndékki maa ngi ñëw de di ma may ndékki. ñëwal. loo loo may may ndékki su ma ñëwee loo may may ndékki. Ah. <laughs> li ma dana ma dof loo <laughs> dama ko bëgg. loo loo togg ndékki tey. tey omelette ah, omelette omelette bi def nga ci fromage. loo yaakaar am na ci. eh yow ah lu ma yaakaar rek am na kon li ma yaakaar ni sama xel mi ngi ci biir omelette bi. lépp am na ci. <laughs> waaw ngi ci yéen tamit yéen ñi may seetaan lu ngeen yaakaar rek mi ngi ci. waaw. ndékki <laughs> nga ba pare léegi. ah non ndékkeegu ma nag. ah ah kon da ko teg noonu léegi ngir yàlla defal ma snap sa à dire da jël sa téléphone nga hmm. snapaleel ma ndékki bi teg ko ci côté télé bi nga yónneel ma ko ah. ci 78 463 34 15 ma xool ni ngay ndékkee di seetaan en même temps sa émission préférée di 11 13. amul benn maa ngi lay xaar de maa ngi xaar vidéo bi de bu ñëwul nag dinaa la mere. Ah, ay bu ma ah kon jeex na jeex na léegi boss bu la yónnee vidéo bi rek jox ko gërëm ñu laal ko fi ñu xool 11 13 chez vous comment ça se passe aujourd'hui waaw mais lu tax sañ see ti nga dama doy waar yow. hey dama nga toog hey dama nga toog yow. li nga la lëz la sama xarit la sama xarit la dafa lu baax rek lay jaay. première fois may participer ci émission bi. yéen man ngeen bëgg te xam naa ni chaque jour nga toog di seetaan. billaay mais sama grande sœur bi mooy naa ma lundi ba démb maa doon na participer. waaw oh, sa grande sœur bi ah? oui bébé Ndeya la tudd. ah bébé Ndeya muy woote woon démb la. oui moo ma doon wax sa am na sa numéro woo woon na la. woo ma démb ba ma jë ba ba ba dégganteeg man. oui wax nga dëgg kon sama kër tante laa nekkoon mais ba ma démb ah, da nga doon seetaan rediffusion mais démb guddee na François démb da nga maa guddee teg. da maa guddee teg kay. waaw <laughs> démb da maa guddee rediffusé démb ban heure la ma rediffusé. ay 23 heures. xam nga loolu du yoon. non non non du yoon moom. heures la ma teg. waaw tama xale laa damay teel tudd. <laughs> kon François démb man la njëkk a teg kon non man je croyais que non non non non non François daf ma guddee teg démb de est-ce que démb la kon. 23 heures la. heures la ma teg. Ah, waaw maa teel a teg lu may kaas kon ma loolu baax na. jarul kaas baax na loolu baax na waaw baax na loolu bu dee 23 heures la de baax na moom mu dëgg yàlla. ah waaw 23 heures la moom. moom mooy bu dee 23 heures moom baax na moom foofu mu ko teg foofu. waaw xasa. oui. dooma kii. ah. kii dooma kii ci kii. lan la loolu. ci kii mooy kii rek. kii yan la non wax nag day yegg bu wax wax bu yegg. yan kii xéewal yi. xéewal yan. xéewal yi ngay ah, joxe. a jeex dangaa tombeel mu jeex wallaay. <laughs> eh ku saa jeexul ne dag may jox. non toujours nag jeex na xam naa ne yow yow foo jëlee crédit bi ngay wootee nii. non man téléphone fixe laa ma ngay sàcc fixe papam beeg yaayam wuy walooy ñëw leen <laughs> ñëw leen ma ngay sàcc. <laughs> non yaa yaa yaa yaa ngi jël sa sa sa sa sa crédit papa beeg sa yaay bi rek léegi bu weer bi dee ñu ne ñu ne mais ñun suñu fixe bi li woote moom temps yi moom dafa bari quoi génne pati pataaral waxal dëgg. <laughs> eh man waaw waxal situation bi ni mu demee an sa papa ak sa yaay actuellement. non sama papa dafa dégg nga léegi nag ñuy sàcc ci crédit gi di woote di fël falaale bu bi dee papaam naan man bizarrement entreprise yi ma woo bariwul woon mais léegi moom sunu fixe bi ni muy demee baax na nekk yéen sàcc di woote on se tere. Ah, eh du coupé instant yii nii crédit gi moom daa bari lu mu bëgg da kay wax waaye maanaam moom la dina ma ah. fekk. Eh, yow di ngay togg añ. maag ah. yow ba 14 minutes François loolu la bëgg mani yow di ngay togg añ. man waaw damay tànke. ok ban ban ba lan mooy sa plat bi nga gën a mën ba boo boo ko toggee yow xam nga ni bii nga gën a mën. man. waaw. dama daa. <laughs> <laughs> kii du nit dara ay dimbali sa papa ji day fay ko day day fay ci fixe bi dimbali ko. non garaawul. ah ah garaaw. Ah. man daal jox ma ci xéewal yi yow xam na yow mën ngay wax ni doo coupé di yow xam naa ne buñ la coupé wul doo coupé ndax crédit bii la ca des bari na. xasaa jox ma ci xéewal yi ko balaa li may coupé xasaa. non duñ la fii moom duñ la coupé xanaa man ma ne ñu coupé la. waaye te man du ma ne ñu coupé la parce que woote nga ba pare sa crédit la sama yoon new ci yaay woote nii di ñaan te li ma lay may. loo bëgg ma may la yow. man loo ma jox baax la. lan nga bëgg. loo ok wax ma dooma daal nuñ koy toggee ah, ci ci ci ci ci ci ci 30 euh, secondes. nga wax ma nu ngay toggee doomu ma may la xaalis ay Moussa man xale laa est-ce que mën naa kaa ah yow waxoo am nga 18 mën nga togg nooy togg nga ne doomu daa def na ko ca yaali ba <laughs> du nit daal ah. <laughs> Moussa en tout daal. man ah. may ma ci xéewal yi rek man. waaw doo wax li ngay toggee doomu daa ma mën la teral nga libéré wu gaaw ñu yeggale sunu sunu sunu sunu sunu bànneex yi nekkee woon. xanaa laa koy toggee. waaw. doo la sa yàpp wala. wala jël wala poulet wala kan. dama daa bu la neex <laughs> vas-y. may ma ci xéewal yi nga may wax. tamit dama daa gi tamit yaa ni yàggal waaye dañu war a dañu war a ambiance aat ci gën maan xomaan vas-y waay. xanaa laa koy toggee. waaw mu gaaw. su ma jëndee ceeb ba seweti ko ñànkatang laay njëkk a teg. waaw ñànkatang à côté waaw. waaw su ma paree teg nii après mu jeex. teg la may ma ci xéewal yi. teg la ñeex bi ñeex noo koy nuñ koy toggee. xibaar yow bu la kenn ñaan si ba nga ni pare naa pour sëy dina la delloo seen kër. ku la ñaan si ne ko pareeguma pour sëy xanaa xamoo sëy yii yëpp da cee bokk parce que yii ay compliment la sa euh, sa dire moom mooy complémenté nit ki yow bu fekkee da nga bëgg sëy war nga mën togg ceebu jën ceebu yàpp yaasa mais xale yi léegi mënatuñ lenn doomadaa gu pare sax mënoo yow sa doomadaa gi nga togg nii maa la daa ko togg yow nan lañ toll. yow da ma da ma teg gàcce man comme ka yow ni nga ni nga ma tegee gàcce moom du ma la may quoi parce que yow 18 ans toll nga ci sëy ñu war la may suba suba suba ku ne la jëkkër nga ni nga ne nga a ah, ah, ngi nii eh, ah ba pare yow munoo toog dama daa. nga ne ma la xale ma ci kii xale la xale nag du ñaan xaalis coupé leen ma kii ba baay ayxasa ku mel leen ma ko ba baay ciao ciao <laughs> xale du ñaar xaalis dem na dem na dem na ay co on enchaîne avec gën man xumaan kii mooy ajamana kin kin ñu dem euh, bu fekkee ni kale nga gré ñu dem seetaan gën man xumaan ajamana ay ca une très belle chanson de Gunman Xuman Gunman Xuman respect à vous euh, Adja Mana chanson bi tamit ndeysaan booy xool euh, ça fait presque douze ans euh, dafa nekkoon au top ah ñëpp bëggoon ki kii mooy ay xale yi ku daan génn moom ngay jëlee sa snap kii mooy Adja kinta kinta dafa bari maana no dafa doy waar chanson bi merci beaucoup gën maan xumaan on enchaîne toujours man ngeen di woo ci 88 628 14 13 jot naa yenn ci ay vidéo yi nga xamante ni moo di 11 13 chez euh, naa la ko 88 bonjour. wàññil télé bi yow. allo. waa sëñ bi wàññil télé bi. waaw wàññi naa ko. wàññi nga ko. ok ñu ngi lay char sëñ bi ngir yàlla. <laughs> wàññi naa télé bi yàgg na. waaw ngir yàlla mayoo ma xaalis dégg nga. non da ngay maye kay. non mayoo ma. non pourquoi doo maye. waaw léegi eh, grand yow da nga may napp mayu ma la léegi yow. <laughs> non napp ma la ni nga ñëwee nii nii nii da mel man ragal laa quoi yow. non yow doo ragal xam naa loolu. kañ ñu jaadu. ga jaadal. nga daw ñu dem ñu yàlla buñ jaadee nga daw. waa kaay kaay dem. waay. ah yow ñëwal rek bañ a defaral lekk dama lay bañ a defaral. non ñëwal rek yow ñëwal rek da ngay bandi bandi. non dama lay bañ a defaral. ah yow yii yëpp yaa ma koy wax. yaa ngi gën a ñàkk rek mooy loolu. yii yii <laughs> waa léegi xam nga lan la. kañ daje ci kañ daje ci tunnel bi. ñu daje fan. ci tunnel bi. buñ fa dajee nga am problème de. waaw man maa ngi dem ñu dem. buñ fa dajee nga am problème. nan dem nan dem ci tunnel bi ñu dem. waa ñu dem. ayca ñu dem yow doo foo sax kaay. non buñ demee nga am. kaay man maa ngi nii maa ngi bi foo maa ngi nii. ba ba sëñ Tuubaa maa ngi nii bi gis nga fii. boo ñu duggee waaw maa ngi lay seen. ma maa ngi nii di soobu ñëwal ñëwal ñëwal ci biir bi. ma ni dugal maa ngi nga xam. waaw dugal. <laughs> ay dof bi nga doon ay bandi bandi yow ma yow ma koj la bi te demoo. non man maa ngi lay taxaw di xaar yow dugal rek. man ñëw naa ba ci bi dugal la compte ñëw yow boo ñëwoon kuu bi bu la dalee gis nga bu la kuu bi dalee man ma ma man sama gauche dafa porté Leuz mën Leuz shop mës nañuy bëre nii man ak moom mais gis nga bi ma ko ne paa dafa wàcc lu leer laay tagal nii <laughs> mais sinon baax. waaw maa ngi sama xarit nga. ay bañ nga kar ma waaw maa ngi cool bañ nga karma ci rokk di ma dóor may naa la xaalis balaa nga may kar di ma dóor. <laughs> <laughs> Ah, waaw loolu neex na. Ah, léegi nan bàyyi xeex bi dégg jàmm laay woote. <laughs> waaw moo gën de. ah am may naa ko may naa ko Fatou jëlal turam ak numéro may naa góor góor laay may tey tey sax ay góor laay may balaa ngeen may sat satoo <laughs> libaas eh, daal du nit waaw lees <laughs> ngi jël numéro am léegi léegi léegi may ko lii dafa cuquwaay lii xoolal gré foog nga tegal ko cuqu naam cuqul cuqu na kaay yow cuqu naam cuqul cuqu na kaay gré may ko lool may ko très rapidement ñu dem seetaan ko yow revient c'est parti eh, eh, nekk na wala nekkul ne weli wala welaane na pàcc ni eh eh yow jàngal jàngal lii. Cukku naam cukkul. Cukku na kay. Cukku naam cukkul. Cukku na kay. Cukku naam cukkul. Cukku na kay. Cukku naam cukkul. Cukku na kay. Cukku naam cukkul. Cukku na kay. Cukku naam cukkul. Cukku na kay. Cukku naam cukkul. Cukku na kay. Cukku naam cukkul. Cukku na kay. Jóg si lal bi fuddu. ubbi dus bi dugg. guddu. yóotu pot bi laabu. sama saabu sangu solu seetu fas yéene feetu démb man ak faatu ci benn lal bu yaatu tey nag man ak koddu faw ñu dugg ruqu am ci ñaari koddu pare wëlbatiku seeti bébé nappu pas de sujet tabou yàgg na ma wóolu nee man la wóolu ma dëkk di ko aju tey foog ma faju comme tey foog ma sóoru am benn yoru jox ko li muy ñaxtu benn xaaju waxtu ànd ak moom di tàggu seeti keneen waxu ku ko gën a yàqu dund sama dund happy sama dund mbaa duma tëccu moytu balaa rëccu maa ngi nii di siccu cuqunaam cuqul cuqu na kay cuqunaam cuqul cuqu na kay cuqunaam cuqul cuqu na kay cuqunaam cuqul cuqu na kay cuqunaam cuqul cuqu na kay coxonaam cokol coxona kay coxonaam cokol coxona kay coxonaam cokol coxona kay duy sa bos mu fees sol sa yére yu bees war sa mercedes yàpp si gel yu xees yeew wu fajar baax laaj sa café saaf teg ci benn xaaf rek waaf sa biir bi taa naan sa potu fonde yegg sa bal bonde déglu mbay donde ku nekk li ngay gonde condamné la perpète le free dajek woo ko mu ne ñokket nga am ci suxet mu xet leer ub sa bopp jékki rek am joor jëndal gàlle toog paax bi gën la soor Eh, Coxna Kay merci beaucoup Mr Gray on enchaîne ak euh, euh, ki nga xamante ni moom moo di Thia National maa ngi ñëw ci moom 88 628 14 13 ma jël ki nekk ci ligne bi bonjour. bonjour. oui bonjour. DJ Kheucha. oui ça va. comment tu vas. je vais bien et toi. ça va alhamdulilah. yaa ngi baax. waaw maa ngi baax nii. man maa ngi baax ku fi xolam di baax. kon tabaarakal oh. la dama nga <laughs> toog yow. man la Mia depuis Tivaouane. Mia depuis Tivaouane comment vas-tu Mia. ça va bien yaa ngi am jàmm bu baax ma dee la. kenn dégguñu ba. non kenn dégguñu de. Mia la ma nattoon ca daara ca daayira ah. oh là là sama dégg mën nga koo dégg de Mia <laughs> ni waa arrivage chez National euh, Thia National xale boobu nga xamante ni euh, doxul ci lu dul liggéey mi ngi leen di indil ay bagage yu bëree bëri bëri yu mu doon dem euh, wuti ji foofu à l'international un peu partout ci drap ci serviette ak yenn yi ni mel donc lépp lu ngeen bëgg rek mi ngi ci Thia National daw leen gaaw ngeen seeti ko la mu jongoma ca bii boor jongoma ko ca bee boor noonu la mel également ci ay matériel am lu mu la jaay qualité la yal sa jàmm yàgg mbokkum yaay le shop maa koy xaare bu baax a baax nga wala bu nu jëlee yoon tey sax dama bëgg gré ñu teel dugal suñu page pub jëm cee génn 88 628 14 16 nga xam ne bu nu dugaatee ci mbalax mi leen jëm salaamaaleykum. waaleykum maa ngi lay siyaare waay. yaa ngi baax. maa ngi man maa ngi baax ku fi xolam di baax tabaarakallah maa la koy yeggaleel. gré <laughs> après may ma on se chez ba pare ñu doog a dem page pub waa nga ne lan. su ma jekkoo. maanaam. su ma jekkoo. mais kenn day la shop ci réew mi. mais ba en tout cas kenn du lëz shop lëz shop kenn du moom. billaay. te xam lu ma neex ci lëz. Mm. mooy xale la. moo tax de. jugewul ñëw di croiser la bras dafa juge Louga ñëw di daan dooleem nga ne ma lan. mu ñu lay loolu ak loolu. du nit nag sama xarit boobu yàlla na jàmmam yàgg mbokkum yaayu Nafi mbokkum yaayu Ndeya. ah bëgg naa loolu ah ñooñu man lañ bëgg waaye man Ndeya bëgguma ko. nga ne ma. dan ma koy boole rek. ñu boole la ci ah. Uh-huh. ah, ah lës dafa xat de. mbaa de kon bàyyi <laughs> saa yi dafa xat kay rocceekul rek xam naa ne moo koy gënal sax taa yi dafa xat trop trop trop. ñëwal bokk ci man rek dégg nga. Ah, waaw man maa njaboote ñëpp ñëwal ci man rek mbaa nga dem ci boos. Mm, waaw waaw waaw waaw boos moom tuutee dee mu jeexle. boos xaw ma ah. je si je me fais comprendre tuuti. Mm-hmm. <laughs> moo des nga fees de <laughs> mais sinon nag yow yaa ngi ci jàmm sama jigéen. ça va maa ngi ak fan ngay wootee. man aw laa tudd Kër Massar. Eva mhm. waaye ñu ngi kontaan ci yow di la béggee bu baax a baax baa lépp nice. Eh, lépp cool kay ah, lépp a ngi mhm. suus. Ah. waaw da nga naan pat ak moom Kër Massar Kër Massar Kër Massar am naa xarit bu fa dëkk mais turam bi laay fàtte waaye ndeysaan sama jigéen ju baax. Ah, am xarit ba pare di fàtte turam. man damay nit yow man yi laay def de. Hmm? ak yeneen yi laay def ak yeneen barke suñu toit mais lépp a ngi cool daal. yaa ngi enjoy sa émission di bànneexu sa xol di bég muy feex waaye bi sàndeeku mais noonu la ministre maa ngi gis seen waa kër yi yéen tamit ni ngeen toogee noonu xaaral léegi ngeen gis seen bopp à travers l'écran ma xool ni ngeen toogee ci 11 13 mais sinon sama jigéen. ça lépp a ngi cool quoi. waaw ah, ngi moom mi ngi suus. di nice di fine. di cool. di rang muy gaaw. muy <laughs> <laughs> fan noo gisee sama rétro yi ma la indil nii yow boo ci ah, xamoon. macha allah man yëpp laa ah, yow ñaata nga 18 ans. Mhm. ba pare nga xam lépp mënul ne. ah lu tax mënul nekk. yow xale nga. xale laa mais tamit YouTube bu mu fi nekkee kenn sonn ak Google. yow mii am nga far yow mii. <laughs> alhamdulilah am nga far naa ko wax seen waa kër. am na far de xale bi am na far. eh bàyyi def. naa ko wax seen waa kër yëpp laa koy wax. yow yow génn génnoo génn génnoo woon fekk Ibu ak Paate. Eh, kuy bokk ci ah, nga leen. xaw ma leen de. yow télé bee tax nga fàtte Ibu ak Paate ñii de dañ lay baax. <laughs> te dinaa la boole dinaa la yoole quoi yoole dox sa poos laa lay def. Ah. mais kontaan naa ci yow. non maa bëgg naa ci yow bu baax a baax sama jigéen. Ah? ah. léegi kon fix yi daal maa leen ko jaral amul problème kon xoolal neel mbaras coupé coupel <laughs> ne daa sàcc ndeysaan da doon bippee rek daa sàcc ci fixe bi xale jaral naa leen lu ne waaye yi ngeen def ni bu leen jàppee rek woo leen ma téléphone ma géré cas bi ayca bàyyi ma jëlaat ki nekk ci ligne ba pare xool on serait chez vous doog a dem ci page pub 88 628 14 say salaamaaleykum Xousa xam nga ni man du ma taay kii kan la Xousa man la Tima maa duggaat yàgg naa ci ligne bi torop <laughs> Tima yaa doon ñaan sànq ma ne la may ma la ndax sa fixe pap bi nga sàcc Touba man damay taal Tima maa ngi yow la mayu ma la. Touba da Tima mayu ma la. Touba mayu ma la. Touba Tima mayu mala la. Touba nag di ma Tima kaay door ma kaay door ma. xam nga lu jigéen Touba man du ma la dóor mun xam nga xam nga jigéen du ko dóor. ah boo moytul ba ma plongé ci taabul boobu ngay gis table boobu libaas teg ma bu ma fa plongé ba yegg ci ci yow Tima. ah du baax ci yow de baa ma boole la ak sama jumel. xasaar hmm, baax na rek yaa ngi may fàttali sax bi may jàng kënfu. ah. jàngoon naa kënfu de ay bos yi yii yëpp dama ko mënoon. laay walaay. xasaar man nga may ma amal sama kersa waaye am kersa ñi lay seetaan tamit am na ñu lay seetaan ñoo xamante ni nii nii nii yaa ngi leen di énervé demal waay mayu ma ah. ah. may may. waaw ah, baax na dina di di ma fi fekk. waa léegi jàpp ci kon. Euh, Nafisatou borom France ki nga ma wax naa ko souhaité joyeux anniversaire léegi amul problème mais waxal kii mu coupé. waaw ah, may ma waay. <laughs> waaw kii bu ma ko mayul du baax waaye léegi bul coupé Fatou jëlal ma turam ak numéro am dina leen teral dina la teral jërëjëf kontaan naa ci yow jërëjëf dégg Eh, aywa kii bu ma xamee lu baax de lu leer laa leen wax zaar yi moom cas exceptionnel lañu ayca gré ñu xool on serait chez vous euh, bu noppee ñu dem seetaani li nga xamante ni moom moo di page pub su la neexee mën nga ko enchaîner ak euh, pub bi bu ñëwee rek dugg ci deuxième partie bi dalal ndaanaan bi moom tamit ayca ñu dem. xëcaa lay doon ca ba muy moom. Atchoum from Saint-Louis du Sénégal centre de l'élégance et du bon goût sénégalais Atchoum. xale baa ngi noonu waari tëggul con waayul billaay toog nii def relâche di seetaan ka saa yow doo dem taali ji sa añ lu ndaw lu gaaw nax nga raw ñu bamba faal moom jolli na faal xasa ba c'est tout simplement magique forfait magique la dee internet ak appel tànnal sa bu la neex mini magique à 500 francs 7 jours la waaye yow lii neex na di super magique à 990 francs <laughs> maa wax de méga magique à francs mbir mi neex na kenn xaaru ko woon loolu la extra magique à 4900 francs tous valables 30 jours profitool ci deal yu baax yi en tapant étoile 11 11 dièse étoile 11 11 expresso ndeysaan garage maraas gi dat ki ayca euh, toujours c'est sur le 88 628 14 13 mbokk mi bonjour. allo Keita. <laughs> oui allo. noo def. maa ngi nii. yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax yow nag yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm bu baax. yaa ngi baax. maa ngi baax. Eh, eh, nga coog yow. <laughs> dama bëgg xale yi ndeysaan yaa ngi ci jàmm. maa ngi ci jàmm kay. ay ca yow noo def. maa ngi ci. lépp jàmm noo tudd. Awa Diop. Awa Diop a juba bëgg dugub. <laughs> mais Awa noo def. maa ngi ci. naka vibe si. ñu si rek. waaw waaw waaw Awa ñaataat nga am. man. onze ans. ndeysaan awa ay ras yi yëpp fekkul fekkul nga juddu booba booba booba ndeysaan ay waay awaa ngi waay son <laughs> bii xamoo ko de raas ah waaw man li ma ci fecc sax bariwut <laughs> ras gii li ma ci fecc li ma ci tombeel bariwut maa wayam de la ca tombeel bariwut de waa awa ci loo ne maa ngi yaa ngi xam nga bolokaas bolokaas waa booy fecc bolokaas ma fecc ko xam nga boobu déedéet. ndeysaan awa li xam barewut awa li xam barewut fooy wootee awa. maa ngi wootee HLM Sodida. ah awa yow mii boo réeree di nga teel a feeñ de HLM Sodida. waaw. <laughs> boo réeroon di nga teel a feeñ xam nga lool. waaw. mais fine daal. waaw. awa yow koo bëgg. non man yow laa bëgg. yow foo ma def awa. ah. foo ma def. <laughs> fii. ndeysaan xale yi. yàlla nga gudd fan awa ah? yow man nga bëgg waaw ma ñëw ci yow waaw mën naa dox di ñëw di dox di ñëw waaw <laughs> wala lay ree yéen aw looy ree <laughs> awa non man kii laa bëggoon nga tegal ma ko lan nga bëggoon eh, joojob ah yow tamit tey retour la waaye awa tey dama lay fàttali jamono suba naa tegal jaw jóob waaw. te suba yow laa koy may. waaw. nga ta aw boo bàyyi sa yi di ma reetaan loo de. te boo ma reetaan loo yi di nga reetaan loo ñi may seetaan nga ne ma lan. mais fixe laa yore. fixe nga ah yow da ngaa sàcc ci crédit gi. déedéet sàcc mu ko de ku la composé. maa composé sama bopp. yaa doon jël 88 628 14 13 ak woote. waaw. awa yow mii ana ku nekk ci néeg bi di la gis. ah. day togg. day togg ah da bàyyi bu ñu dugg ci waañ bi rek nga jël composé rek woote. awa <laughs> oh, daa bëri jàmm ndey saan Eva kontaan naa ci yow dégg nga. waaw dawal balaa ñu la fay fekk di la jàpp di la di la di la fiile dawal gaaw <laughs> kontaan ci moom Eva di ko bëggee bu baax a baax a baax merci beaucoup. ayca wuy raas wuy raas ñu raas. Garas Maras jal Kit Garas <laughs> merci beaucoup ñi ngi koy kontaane bu baax a baax moom itam Aïcha euh, toujours ñi ngi ci euh, ñi ngi leen di waajal nag dalal leen daanaan bi nga xam ni euh, nee naa leen moom moy l'homme de trois générations ndaxte génération bu ñëw bu ne da koy bëgg fonk ko ndax musique am c'est de la bonne musique ah ñu jël ki nekk ci ligne bi 88 628 14 13 bonjour salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokk mi ñi ngi lay siyaare. ñoo ngi déggoo ziar. yaa ngi baax. maa ngi baax. maa ngi baax man ku ci xolam di baax tabaarakallaa. yooyu nga sañse nice na de. merci beaucoup gars ñu ngi koy. may benn doxantu nii. benn benn njaab quoi. waaw. njaabu bandi wala. non njaab bëgg a neex. njaab ban bi bi bi yaa ngi ciy béy wala. non <laughs> eh, nga yow. ku na de. non kii la shop la sama xarit la sama xarit la daf ma bëgg. dafa ñëw bàyyi daal bi si ginnaaw. waaw mais da daal bi Ibou Maket la xam nga daal. dafa bokk ci sànce da parce que euh, lu ne war na am luy tas yaakaaram. te damaa génne woon ay dàll yu weex. xool boos boos xam nga boos mënul sànce. ma ne ko boos dàll yu weex yi ak noir yi ban ngay jël mu ne ma non weex yi dafa nice ma ne ko boos nag ndeysaan moom courant bi yegg seegul ci moom ma ne ko noir bi mooy gën a génne sañse bi parce que noir bi mooy ñëw tas yaakaar bi nga xam ne li nga sol ci kaw ak suuf lépp day ànd nice na weex da koy génne yow da da dégg da dégg da ngaa dégg non yaa ma gën a dégg yow non da ngaa dégg da ngaa dégg lii lépp baa du ci xaalis bee tax nga koy wax wala non instant bi moom dëkk bi daa jate ah euh, may naa léegi góor te saa boo ñemee raag rek nga ñëw nga wax ma boo bëggee roq baa ngi man dem si dem si guddi ba ay minuit xasaa maa ngay seetaan yow tamit. waaw ok yow yow yéen de man da ngeen ma xaw a jaaxal. yéen démb rediffusion bi ban heure la. maa ngi toog di ko mais boos ñun dugunu kër ga jàpp tele bi une heure trente gisuñu onze treize nga ne yow émission bi daw na minuit. kenn vingt trois heures. minuit sànq dafa minuit. kon man la njëkk a teg démb. non François nag taay taay taay taay jël nga ma de. waay man dama kaa yàgg jël. <laughs> non waxuma la yow eh, la wax. waaw loolu dafal rek wala ñu jaadu koñ léegi man a yow. <laughs> ñeme nga jaat. non saa yu tàppet nga ma yow nduru de boo ñemee léegi ñu dem ci ci ci ci tuyoo bi tuyoo baa ngi fee de. <laughs> mais damay dem saal guddi. nga ni. damay dem saal. ban saal. saal HLM. i booy sama saal a dàq sa saal. moo yow. seen boobu fitness beneen affaire la boobu yooyu xeesu xeetu step maanaam suñu danse bu la ko astu toogalee. cheikh toogal la ka ninkilee nga dox tuuti mu génn jox la ndox nga naan. non saa yi loolu gaa yi attanul ko sax kere euh, lës jëlal ma lii loolu dafa toog suma waa ji. Badou. non loolu dafa bari gars yi attanul ko. waaw dafa dagg boog la may du ma la may. fexe bañ a man su ma waxee rek yéen xoola bu leen di kii man su ma leen du ma la may <laughs> sànq nag am na ku may ku may jàpp ci sama gem bi xam na ne damay café loolu noonu mais yow góor moom may naa benn góor may ñaari góor ñetti góor may naa fi ñaari góor je crois. a yow fan nga dëkk ba pare ma xool. maa ngi ok léegi dama lay poser trois questions. boo jàppee deux yi ma may la xaalis. waaw demal football ngay gën a seetaan basketball wala làmb. non football. Ah. ok actuellement ana Cristiano Ronaldo. diñ ko mettre en quarantaine. Hmm, actu euh, moom dong la ñu mettre en quarantaine wala équipe bi yëpp. non moom kese. ok jàpp nga benn question c'est bon euh, deuxième question euh, lan la Chris doon wax keroog Mbappé. <laughs> mu gën a jàpp rek te xam ne mun naa yegg si niveau. yow yow yaa ñeme yàlla loolu la ko <laughs> <laughs> yow ñeme yàlla nga yow perte nga benn ok question yi ma lay posé du du doon lu terre à de lan moo tax euh, match Sénégal Mauritanie amul. ah waa Mauritanie dañu leen dafa am ñu positif. waaw ku la wax loolu kan la ñaata joueur la. non je ne boo xamee nag nga wax ma da nga léegi da nga koy xayma huit walla cinq. ah <laughs> perte nga ciao ciao. <laughs> perte nga jaar dawal. waaw jàppale alors ah, da ngaa perte nag da ngaa perte Fatou bu perte da nga koy coupé may keneen ñëw kii bu perte coupé ko may keneen ñëw caaw. <laughs> illaahi maa ñàkk gore man mii war nan ma xoolaat de war ngeen ma war ngeen ma ndëppal nag man mii da ngeen ndëppal ma nekk nit ay ca blocage laa bëgg ñu dem ci blocage bu ñu demee ci blocage seetaan rubrique TikTok dalal ndaanaan bi mu ñëw béggal lu ci mbaax ay ca ma jël ki ne ci ligne ba pare 88 628 14 salaamaaleykum. maaleykum salaam. na nga def. maa nga fay. mënuma ko. ah booy fay nii ngay def gis nga say ñaari loxo. nii ah. di def nii di ñëw di def nii maanaam boo nuuroo quoi mais bu fekkee ni fay kii la euh, par exemple fay ci biir euh, piscine wala dara mën nga def nii rek loqi mu dem yaa may dégg. waaw yaa ngi baax noo tudd. Awa. Eva. Awa. waaw mooy Eva. mais lépp nice Eva. lépp tranquille. naka vibe si. lépp cool. Eva da xaw a sedd lan la. ah neexul sa yaram a neexul. Hmm, waaw da ngay bàyyi ba sa yaram neex nga woote waat. waaw. Ah. <laughs> Eva. <laughs> lay baa mën a tooñ ñu bolokaas jug leen ñu bolokaas non de Dieu fii moom ñëpp bolokaas nañu defe naa seen kër tamit raw na euh, ndaxte bolokaas dafa neex macha allah merci beaucoup Père Mbaye on poursuit amis chers téléspectateurs toujours euh, ñëw nag ci rubrique TikTok euh, daaga dalal ndaanaan bi gré am na yenn yu ma la yónnee ci on serait chez vous gardez ko juste après su may taxaw ak ndaanaan bi dinaa la ko laaj nga mën nu koo bànneexee donc très rapidement bu fekkee ni rek yemb na mën nga nuy dugal ci rubrique TikTok seetaan ko mu doog a dal dalal euh, sunu invité du jour bi ayca c'est parti ñu xool rubrique TikTok from le shop. la sama noon weddili ma doon dama jóge woon gas def ci kàmb la ma bàyyi be woon léegi maa ngi nii jëlal ma jeeg ju ndaw ji ci kër yi fas e bégal seen chéri yéen laay waxal sil sa ceeb mari na ci sa yàpp tufe ci sa ganaar xool boo geesoo yam ci sa jëkkër muy ree ba seet na cam-cam bi lii la la waaye ren ji dama indi bonus tubaab bi naan bonus wala fi naan ko bugg ñaar su ngeen ma laaj lu mu atem tamit tamaat boo ko dee rosee ak maafe e soxlawul tamaat Attends, tout le monde sait ça. Tout oh. le monde Tu as de la dignité, tu as de la valeur, tu as de la tout. Mais il faut se taire si tu ne parles pas français bien bon. Attends, on se dit quelque chose. Tu as dit que je suis un snapper, je suis un cardiaque. Non, je ne suis pas ça. Parce que je travaille bien bon et tu, connais ça bien bon. je travaille chaque jour que je fais aux États-Unis, partout. laaj boo bëggee xam luy xewi gang bi wàññi néew yi bi jël seen jànki jeegi xam fi métti di ko wokk ak jaas yi sémiñ xaj bu dee bi boo fi sooboo géeju jaasit ngay gis wàcce naaj bi nga ne leerul jaarul laaj fuy reptile kaa ñu jël la boone kaali jéene kaati péri paa bi jàppi pémi des bi ne day daabi pé bi rab laay def wala may set bay seetal salti géey yi ey Merci beaucoup, merci beaucoup pour les rubriques TikTok, le shop, merci beaucoup. Alors très rapidement, le temps de souhaiter joyeux anniversaire à Aïda bon anniversaire et joyeux anniversaire à toi. yow Villa Total li nga tarkal la dundee di nga dund lu bari ah maa la wax loolu mbokkum yaay ngi lay souhaiter la Total bu baax a baax a baax di la souhaiter joyeux anniversaire. Alors très rapidement, toujours au natif du jour euh, laata ñuy dalal ki nga xamante ni moom moo di ndaanaan bi euh, maa ngi asalaamaaleykum. salaam. na maa ngi fi. yéen a ngi ci jàmm. waaw alhamdulilah. alhamdulilah macha allah. allo. allo. oui ma ne alhamdulilah macha allah. waaw. <laughs> yaa ngi baax de ah. waaw maa baax. alhamdulilah noo tudd. damay lépp tudd. waaw naa la kook lépp yow lebal naa la lépp. <laughs> ayca. allo. allo oui. je t'entends Aïcha nga ne. waaw xëcaa yow sañseeti de. waaw merci beaucoup <laughs> bu ci yemoon mu neex waaye du ci yem xool leen ka fu jëm waaw nga ne. sa numéro laa soxla woon. sama numéro dong. waaw. bul coupé Fatou jox la ko ci suuf. merci. beaucoup Aïcha maa ngi koy kontaane bu baax a baax le temps aussi de souhaiter joyeux anniversaire à mes deux neveux c'est les neveux de euh, Nafissatou Ba et Amadou Tidiane Sy mi ngi leen di souhaiter la totale bon anniversaire à vous et joyeux anniversaire véritablement euh, joyeux anniversaire aussi à Penda Seck c'est de la part véritablement de Oumy Fall depuis Rosso Mauritanie mi ngi souhaiter la totale bon anniversaire c'est bon pour les anniversaires euh, Penda Love ah maa nuyu bu a a baax ah gone Pikine gi gën a yaa ko tenir yow ah borom teint noir d'ébène bi maa ngi koy bu baax a baax di la kontaane Aïcha mesdames et messieurs, mes chers téléspectateurs un instant le temps de vous présenter euh, benn icône de la musique sénégalaise koo xamante ni macha allah euh, man naa ko tuddee wala ma duppee que l'homme des trois générations fi ñu toll nii Sénégal ñëpp ko bëgg ah lu mu génne mu neex lu mu def même bu dee benn snap sax au bord la plage ñëpp koy bëgg di ko partager donc le temps de vous présenter le grand le maestro ki nga xamante ni moo di Fallou Dieng euh, coloré bi donc moom lay dugg see bëggalee ko sénégalais mu ñu ñëw toujours ci rétro c'est sur 5 4 3 2 1 c'est parti. très belle chanson également euh, qui enseigne beaucoup de choses papa ñëwoon nii ci kanam euh, ñi ngi lay kontaane di la siyaare ah de retour ñëwoon nga fi sax yàggul dara. yàggul waaw waaye newoon naa la tey dama lay ñëw spécial euh, indi la invité la pour rétro yi nga xamante ni sénégalais yi ñi ngi ko doon laaj euh, bëggoon ko loolu maa ngi lay nuyu. maa ma lay bàyyi nga nuyanteeg téléspectateur yi ñu doog a. xuus ci ko waaw xëcc maa ngi di jeex xëcc maa lay fay. Mm. di nuyu téléspectateur 2S yëpp. Mm-hmm. di jiital ci nuyoo bi sama mag sama xarit ji Ndiaye hmm. ak soxna euh, ma madame Ndiaye ndax ñun fii suñu kër la suñu cosaan album bii ma lay wax nii fii laa ko enregistré waaw yaa euh, nu mu tudd euh, biyaag gi hmm. temps yi Alaaji nekkee biyaag gi studio ba hmm. nekk fa 1996 laa ko enregistré woon mu doon album boo xam ni album bu amoon succès la muy biri biri donc maa ngi nuyu téléspectateur u de s yëpp mes amis mes fans ñëpp xale yi. 11 13 11 13 waaw. ñëpp maa leen di nuyu. ndax xale yi ñëw it. sama génération la <laughs> nopp day mag borom. dëgg la gis nga moo tax ma tuddee duppee ko l'homme des trois générations ndaxte xale yi euh, ku ci nekk bu toogee danaan ma may xëcca il faut que nga invité nu le maestro euh, ki nga xamante ni moo di Fallou Dieng vu que chaque mercredi dañuy gis say rétro dama koy indi xam man déjà ah, je suis fan de vous donc munu may bañ di wax ci lool mais seen chanson boo xamante ni euh, dafa am ay message muy coloré mën nga nu ci leeral tuuti tuuti rek lan nga ci doon wax waaw coloré xam nekk loo xam ni way la li may dox sax ci mbedd mi ñu naan ma fàllu reprendre couleur yi dafa bari ndeysaan xam nga musique bu àndeek texte bu valable mhm. musique boobu ba ba ilaa yow mi diine musique boobu du du du dee mhm. parce que couleur dafa nekk thème boo xam ne thème moral la mhm. boo xam ne dafa toucher euh, euh, les sénégalais toucher mu nekk wayu dëgg mu nekk way boo xamante ni waxuma la musique bi mais paroles yi rek déjà dafa riche. ça xam nga ni coloré lu am solo la ci doomu aadama. nit da nga war a am coloré. Mhm. nit da nga war a sàmmonteeg say mhm. da nga war a am xaritu daaw. Mhm. nit a sàmmonteeg xool li ngay bañ lu bari looy bañ sa diggante sa nawle. ba tax na coloré dafa am solo trop ci dundinu doomu aadama. moo tax ma woy ko. c'est mon messager ah, ah, en tout cas yéen ñi toog seen kër di bànneexu euh, di ci gis lu ne euh, nee naa leen fu mu tëll fu ne nit ñi bëgg ko bokk na ci titre bi nga xamante ni askanu lawbe euh, ça continue de un peu partout dans le monde dinaa la keroog rek bi ma demee ci sama soirée bi foofu ca onomo euh, gars yi ko doon teg mais ñëpp a jóg pour vous dire que ni euh, ñëpp ko bëgg <laughs> donc géré euh, may ko sénégalais yi ñoom itam ñu bànneexoo ci seen biir kër ñu dem ci li nga xamante ni moo di askanu lawbe c'est parti 5 4 3 aca go une vieille chanson qui continue yaa ngi fitna xam naa ni sa yaram tàng na mais mais mais gis nga way yi man lan mooy secret way yi parce que ça continue toujours de faire des étincelles nit ñi dañ ko bëgg ba tey lan mooy ciy secret bi bon secret bi du dara dul dañ ko liggéey ni ko war a liggéeyee mu nekk ay morceaux yoo xam ni musicalement xam nga law bi ambiance la waaw mais daf fi nekk musicalement ndax morceau la boo xam ni mais yi fi ne nii mënul dugg de. non non yi. seetlu xeetu lëmbal. waaw bi mu existé ba léegi. Uh-huh. amul benn morceau bu féete way way wi mu lëmbal bi kaw amul. non amul amul libaas nee amul. parce que dañ ko way libaas nee amul kon amul. libaas dañ ko way ci esprit. <laughs> lawbe gi. dañ ko ci esprit lëmbal. way ko musicalement ci esprit bi nga xam ni moom la sénégal yi bëgg xam nga lii ko koy fecc amul temps. Eh, mais mais mais Père jamono ji yaay woon sa jamono nag. Ah, xam nga nag sëñ Fallou borom jamono. ndeysaan sëñ Fallou dafay nekk rek toujours. ndeysaan xanaa kañ njàng moo gis day fekk mu am àllarba rek. xaaral ma bàyyi la nga jël ki ne ci ligne bi ayca. salaamaaleykum. maaleykum salaam. ñu ngi lay siyaar sëñ bi di la nuyu bu baax a baax. ñu ngi lay kontaanee bàyyi ma bàyyi la ak Père Fallou nga wax ak moom. waaw. waaw salaamaaleykum. maaleykum salaam. na def waay sëñ bi tur bi. Makhtar. ah. Makhtar Dieng Makhtar. Makhtar Dieng Salla Wayndé yaa neex sant waay. <laughs> ñoo ngi lay déglu. allo waaw. waa ñoo ngi lay dégg. ñu ngi lay dégg bu baax Makhtar. allo. Makhtar ñu ngi lay dégg bu baax. nanga def. maa ngi rafetlu émission bu baax. ñu ngi lay kontaane ñun itam. Euh, di nuyu sama papa doomu baay. jërëjëf Dieng. Ah. aha Maxtaar ayca moom Maxtaar ñi ngi koy kontaane bu baax a baax di ko jaajëfal itam. nga ne maa ngi doon wax naan la Lawbe. Mhm. te dañ ko liggéey morceau yi soo gisee ñu nekk ba léegi. dañ leen doon atelier musical. ok dañ doon tëju di ko répété di ko liggéey di ko liggéey en atelier pendant des mois bi nga xamante ne nii par benn benn lañ koy def ba orchestre bi dajaloo ñu répété ko ba mokk xam nga loolu musique boobu day am am maanaam day am ruux. musique bi day dund. moo tax nekk ci xol yi. Mhm. c'est parce que morceau du machine moo ko liggéey ay nit ñoo ko liggéey nit yooyu nag ku ci nekk boo indee sa sa valeur artistique bu dajaloo day am day nekk benn am bu dëgër looloo tax morceau yi ba ilaa yoomi diine du ñu xew la bokk na ci titre bii nga xamante ni moom itam yëngal na àddina yëngal na jamono muy maanaa maanaa maanaam mu ngi génn en 2009 fekk na fekk na sax vraiment mu nekk na si dernier succès yi nga xamante ni def naa ko ñu ay di ko may ñëpp ku am maanaa ngee fitna waay fees aja taxawal baax taxawal bu baax fees sama yaram tàng na macha allah ñi ngi kontaan bu baax a baax euh, am na beneen boo xam ne dinañ ci ñëw gré laata may souhaité bu baax a baax euh, ñi nga xamante ni ñoo di toujours au natif du jour joyeux anniversaire euh, bokk na ci ki nga xam ni moo di aux jumelles Khadija et Amina Fall bon anniversaire à vous et joyeux anniversaire petit mbay depuis ces aussi waaye itam euh, boutique iPhone les rois de la pomme cité d'Amel euh, kooku abo la macha allah kooku nga xam ni tarkal la loo bëgg ci iPhone rek moom moo ko baaxee ci chargeur bu baax original ak lépp maa ngi koy nuyu sama xarit la bu baax a baax a baax a baax euh, également Chérif Sarr Italie mi ngi lay nuyu. ah Chérif Sarr sama xarit. Ah. sama doomu day kooku su ma ñëw Italie da ciy day sonn di man mi ngi lay seetaan nii. mi eh, ngi lay Chérif maa ngi lay nuyu yëpp. ndeysaan. ñooñu su ma yaay su ma ñëw Italie dañ ciy sonn surtout Chérif moomu sama mag la ndeysaan sama xarit la ndeysaan dundal waay Chérif ñi ngi koy kontaane moom itam bu baax a baax titre bi lan def maanaam maanaam moom wërloo na ma àdduna hmm? fekkoon ci li ma wërloo woon mais maanaam dama ko def tourné ci trois ans dem ci Europe dem ci Amérique dem ci partout ndax bien avant sax ay maanaam c'est vrai que man album yi ma def yëpp damay sant yàlla hmm. c'est des albums à succès li ko commencé 1990 muy album duo duo juboo mhm. album boromam nga xam ne reprendre naa ko temps yi mhm. yooyu album yi defañ trente ans ay biri biri weex bët ah Samba Sura Bale Cheikh Béthio morceau yooyu yëpp c'est-à-dire man sama album yi yàlla dafa defal sutura mhm. sénégalais yi adapté ko par rapport ak ma personne ma petite personne te temps yooyu ku ne xam ne ni yaa moom woon vent non boobu moom kañ nee naa la ah. nee naa la fi luñ fi def defaat la. la ilaha illallah ndax fi def nañ gere euh, ki ne ci ligne bi xanaa rek baa euh, ñu jël ko rek. ndax dama bëggoon ñu ñam tuuti ci moom vent bi. 88 628 14 13 nit ñi ñoom du ñu bëgg ndeysaan yam ci seetaan bi. voilà waaw foofu ñuy wootee salaamaaleykum. maa ngi lay siyaare yaa ngi am jàmm. ça va ça va. ça bien et toi. ça va. très waaw maa ngi baax. man la Bébé Ndeya. comment vas-tu. ça va. Eh? ñoom nag fixé la nu yor. su mu ne ah, nii heure bu leen neex. <laughs> Ah. ñoom fixé la ñu yor de ñoom bu ñu coupé lu leen neex la ñuy wax ndeyaa. def leen saf. dañuy def leen saf ci ligne <laughs> gis nga li ma desee ci waxtu barewul. xam naa loolu te sama papa ji li ma ko bëgg dama bëgg dama bëgg mu am lu ma ñamal tuuti rek balaa may tàggatook moom tey gërëm dama koy ñaan juróom minute ci la ma la ma la ma këfoon aslaf ca tàmbale ba. Ah. dégg nga bébé ndeyaa waaw bon bon pare bon bon euh, pare Françoise Mbéj ma amul problème. Ah, damay wax ni maa ngi profité bu baax. di souhaiter joyeux anniversaire. à mm. Seyna Vincent Do. waaw di Khady Seyna bu Ñing depuis la France. Mm-hmm. et di di euh, def kooku sama ma petite fille. Mm. Euh, Adja Ndey Ndey Fallou. mu sama doom Kodou Dieng. Mm. di nuyu Ndeye Dieng di nuyu ñoom Mamadou Mbengue. bu baax a baax maa ngi leen di nuyu. di nuyu ñoom Koro Abdou Ndoye ñoom ñëpp ngi seetaan sama fans yëpp daal. tey dama lay wax ni nit ku nekk. Hmm. génération bi la bëggoon ñoo lay bëgg ba faaw. ndeysaan donc tey c'est vrai que mbalax maa ngi fi ba léegi. waaye surtout am naa benn côté bu ma jaar def surtout la côté acoustique fan yii sax dinañ ma déggaat ci benn programme boo xam ne dinaa ko organiser. invité sama fan si yëpp maa koy présenté ba yaa koy présenté kon jeex na loolu kenn waxatu ko ma xale yi <laughs> yéen résidence Blue moom ndeysaan nee na ndaanaan dëgg nga taxawal euh, moom euh, ku yàgg déglu musique la ko xam maa ngi koy jeex na euh, gën dimbali ma rek ci moome vent bi moome vent bi ñamal ko xale yu tuuti rek sam ñu déglu moome vent bi nga xamante ni Papa Fallou Dieng woyoon na ko ñu dem seetaan ko si c'est calé maa moome vent ba nga moomee vent xewoon naa. bi nga moomee vent xew nga ma nangu ko. <laughs> sama xol sedd na rek di la ndeysaan nee na ma sama xool sedd na kontaan naa trop trop trop waaw ndeysaan ñooñu dañoo bokk ci sax ñooñu samay doom lañu. ndeysaan ndax maa leen yar. ndeysaan teg leen ci yoon bi macha allah eh, ñu nekk ay xale yoo xam ne aussi tamit xale yu baax lañu ndax fu ñu toog dañ koy wax. Hmm. nit moom damay wax ni reconnaissance rek mooy nit. daanaan la sama mag ji. vraiment maa ngi koy ñaanal. Hmm. yàlla na ko yàlla taxawu. ci ñu ngi kontaan ñun itam bu baax a baax a baax ci dalal ndaanaan bile ndaxte tey gis ngeen li leen indiloon ci rétro euh, naam ne naa leen lu duuf ci nag li xajul ci cin li. Hmm. buñ fi toogee di teg ay oeuvre am fii la ñuy fanaan. du mat sax day ëpp sax deux heures de temps. pour vous dire que ni lu mu mës a génn ci àddina sénégalais yi apprécier nañ ko te day am valeur papa ñi ngi lay gërëm encore une fois c'était pas évident. je dirais pas que sax c'était pas évident ndax euh, ku ne xam na ni ndaanaan la amul temps amul jot euh, ku ne xam que ci àddina doo dox fenn di ko présenté jamono ji ñu toll euh, muy l'homme des trois générations ba tey way yi di continuer di dugg ci xolu doomu aadama yi way bu am solo la way nee na ko bu nga moomee vent xewoon nga maa moomee vent xew naa kon nag man man damaa xew da nga xew jamono bi nag wala na gaa ñi nangu da ngaa xew <laughs> donc loolu muy wayu dëgg da ngay nangu dogal parce que bon c'est vrai que toog nañu Sénégal yi déggatuñ ma woon mm. ma nangu dogal bi parce que mm. nit nit moom ndog-ndog bu la dalee ci àdduna. Mm. du question que dama daanu de. Ah. mais ndog-ndog moo ma daloon mu nëbb ko Sénégalais yi toog. mais na na leen leer ni euh, gaynde ku koy takkee sagar. Ah. da koo xamul. Oh, day gëlbaloon waaw. te waaxu gëlëm xajul ci pantere je reviens. Eh, ñëwaat c'est le grand retour eh ñu la nga tàggatoo ak ñoom uh-huh. sant ñëpp tous tous mes mm. wax dëgg yàlla lu ma génne rek ñu apprécier ko jàpp ci di remercier Sénégalais yëpp walaay wax et di ñaan pandémie bi nga xam ne moo xew ci réew mi mm-hmm. am ci réew mi am ci àdduna bi yàlla nañ ko yàlla teggil amiin ba ku ne mën a delluwaat say activité amiin scène musicale bi tamit gars yi nañ ñu dooleel te xam ne aussi tamit artistes yi amul loolu seen seen aar lañ mm-hmm. leen jàppale ba ñëpp ku ci nekk mën a delluwaat sa place liggéey euh, comme ni ko niñ ko niñ ko commencé nii je pense que ñoo ngi ci dégg sax yeneen bruit mais nañu bàyyi artistes yi ñu liggéey mm-hmm. ndax mooy seen gagne-pain. kontaan naa maa ngi ñaanal ñëpp waaw. merci beaucoup d'être passé et puis di la ñaanal aussi. allahumma amiin bonne continuation yal na la yàlla jàppale. amiin yaa rabbi taxawu la. bëgg naa la gis confrontation ak Bijou. Bijou xanaa. Bijou moom ay kii lañu quoi dama ko man su ma naree ñëw def émission mel ni ku nekk tribunal nañ ko bàyyi <laughs> Bijou. maa ñëwul. <laughs> voilà jërëjëf ay jëfër jërëjëf kontaan naa merci beaucoup d'être passé Père Fallou merci beaucoup à vous à la régie euh, merci ci temps bi ngeen nu yokkal euh, ndaam sax euh, matoon mais da ngeen nu ko woot ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax merci beaucoup Gré merci beaucoup à l'équipe technique merci à Ngaye merci à Rokhaya merci également ñu découvrir xale yu bees yi nga xamante ni ñu ngi sur la toile merci à toutes et à tous et passez un excellent ceebu jën ça fera du bien ciao